vision des choses, de changer la démarche de, de cette jeunesse-là. Donc, mm-hmm. nous devons être des, des, leaders, nous devons être des exemples par rapport à notre comportement, par rapport à notre démarche. Maintenant, nak tay ci taxaway bobu su nekkee taxaw nañ ci yaakaar naa ni xale yi dinañ mën a xool leneen dinañ mën mëna xol leneen beneen doxel. Nous sommes pas nous, nous ne sommes pas dans un pays bo xamanteni de dénoncement, de dénonciation. Mm-hmm. Parce que affaire guerrier, xam nga dénonciation moy affaire guerrier. xam nga maa fi ëpp fiit maa fi gën a nangam maa fi danga nangam nous sommes pas dans ce pays là nous sommes dans un pays boo xamante dañoo am ay valeur yu ñuy le jeu politique warul mun a taxaw warul mun a tere nga solal wax gi yëre mm-hmm. mooy wax jeu politique bi lu mu lu mu neex neex neex wax ji solal ko mbubb mm-hmm. mu rafet ormal ko mm-hmm. jox ko cër appel à wax waaw c'est-à-dire appel à l'insurrection ak yeneen discours yoo xamante ni ñun om politique yi dañ koy wax ñun homme politique laay wax waxuma kenn que mu nekk pouvoir que mu nekk opposition nous avons l'habitude de tenir certains discours qui n'honorent pas notre république et nos valeurs yi nga xam ni moom lañ ñu yare parce que ku ci ne nag nañ la yare sa biir kër ngay andi ci terrain politique bi ku ci ci yow parce que quand il de ma de Serigne Mansour il incarne ces valeurs la du Tijania et de ces de ces gens là tu le respectes soo ko déggee muy wax da nga koy naw soo ko déggee muy wax li liñ ko yare moom la andi ci terrain politique bi ki nga xam ne nag man dañ ma yaree ci saaga ak xasteeg nangam moom lay andi ci terrain politique bi mhm. moo tax nag dañu war a assainir le terrain politique et savoir pourquoi pourquoi nous avons choisi de militer c'est un sacerdoce c'est un su nekkee sacerdoce c'est important mais su nekkee pour des propres intérêts crypto personnels ça pose problème d'accord alors euh, Pa Assane ñu bàyyi la nga rebondir ci waxaale ci agression yi balaa ñu ñëw si Mountakha. alors je je je pense que euh, yaa ngay wax agression. Mhm. am na lan moo indi cette impression que on veut euh, agir wala fonctionner ci logique gu pensée unique. Mhm. lan moo ko indi environnement. Mhm. ban mmh. environnement. lu tax sénégalais yi mel nii léegi jamono bi te meluñu ko woon avant. du ko waral. lu tax sénégalais yi violent te violent wuñ woon avant lu tax sénégalais mel ni ñu ñàkk kersa ñàkk teggin te meluñu ko woon avant. ñàkk gi moo ko waral dafa dafa am gis nga nit ku stressé. Mhm. capable na lu ne. te wax na ko sànq dafa ne y a eu une dizaine de crimes ci at yi mujj nii wala sax deux ans trois ans yi yoo xam ne yëpp kii ñoom kii frère la. Mhm. kii ñoom ñaar ñoo dëkk. kii xaritam la. jëkkër ak jabar des gens proches. jëkkër jabar collègue de travail comme le dernier. Mhm. mais ñooñu lan mooy seen problème duñu ay bandi mhm. mais concours de circonstances nu am nu taxawee parce que dafa am lu amagasiné wu ci ñoom psychiquement ànd ak seen subconscient ñuy denc muy mu mel ni pot di sotteeku di sot di def di def ba fees mhm. su feesee étincelle bi mën na jóge fu ne ci circulation waa ji droite kii non eh lan lan yow kii xaaral mu génne paaka jam ko circonstanciel mais dafa am lu dajaloo ci waa loolu dajaloo ci waa ji lana environnement ban waa ji dafa am niveau de vie bu ko permettre mu dund dundu nit léegi waa ji mënatul dund dundu nit vous êtes dans une société Sénégal. non non baal rek kilifa bi. quand vous êtes dans une société. Mhm. où en deux mille vingt ne le mètre carré coûte un million de francs CFA au point E. le foncier Sénégal mètre carré bi nga xam ni dafa cher ba romb mus ko mhm. mel ni. niveau de vie proportionnel au Sénégal dafa tolloog dëkk yu mag yooyu Sénégal bokk ci parmi les dix villes les plus chères Dakar du moins au monde. ban lan moo waral loolu te ñi fa dëkk nekk ay nit yu appartenir à un pays qui fait partie des vingt pays les plus pauvres au monde dañ daan wax vingt cinq. Mhm. nous avons régressé on nous a appauvris. laaj leen waa Sénégal ak contrôle économique ak suñu service yi liggéey ci trésor dommage posez leur la question donc l'angle de réflexion a été biaisé non non l'angle man liñ ma yaree dañ soo lekk suuf sax soo ñàkkee ba ñànki bu mu la jaral nga def lu ñaaw man loolu lañ ma yaree kilifa bi dommage baal ma rek ma àggali dommage baal ma àggali à cause de ça les gens seront baal ma ma àggali mhm. dama nit du ñàkk ba saalit nit du jaaxle ba fàtte borom bi waaye mbooloo maas lu ko yàq gën a yomb lu ko defar après nga rappelé ñu les quatre déclarations de suñ Babacar maas suñ ci taxawee rek maas Sénégal baax <laughs> mais rappelé ko maas maas laa wax masse de population masse populaire lu ko yàq gën a gaaw lu ko defar te loolu muy wax ci suñu maam xalifa Ababacar Sy mhm. benn kàddu maam xalifa bu ci Macky Sall tënkoon président ba baax bi bu ci teg woon du échouer. La question c'est pas ma rek ma àggal il va partir les autres vont la société sera là la société sera là. a il est en train de politiser ah, moi je ne politise pas. non a expliquer je ne non daf ma laaj. Macky ah, partira environnement. nous vivons dans un environnement. c'est important oui Macky partira. Macky autre viendra. oui le Sénégal restera. oui ah, mais la ñu oui. ce matin ou demain, je ne sais plus, un enfant de 18 ans aux États-Unis mm -hmm. qui aurait tué plus d'une dizaine de, de, de personnes. Une fusillade. Fusillade. Nous avons dit que les États-Unis, parce que c'est un environnement de violent. Mhm. tax avons violent, et pourtant peine de ma nga mort. Mais structuration, war a réglé, c'est un problème. Parce que peut-être nous avons une valeur, nous gëm gëm tubaab bu tout day monde mhm. est nag bu ñu une valeur. amaana du ñu xaru mais dañuy def lu raw xaru amaana dañ ciy boole ñàkk jom moom dafa wax valeur ñàkk du ma tax a ñànki mais mbooloo mi ñan ñoo ñàkk bay ñànki calculer la nombre de sénégalais yi fi nekk di dund entre ñi baax ak ñi mel ni man yées ñi nga xam ni dañoo nekk ci lu dëng minorité lañu au Sénégal. Mhm. sénégalais dafa baax dafa dëggu dafa jub xool bi dafa rafet. mais le pouvoir la mm. ce régime là. moo indi ci Sénégal xoñoñal malheureusement bañante c'est dommage haine C'est dommage. Nous, nous vivons dans vous la haine. Plus chroniqueur, vous Pardon, êtes partisans. Nous malheureusement. on, parle de valeur, on parle d'autres, tu, tu nous vends non pas sax nag pas sax nawoon non parle d'une société il faut parler avec les gens les yeux dans les yeux droit dans les yeux et leur tenir des discours de vérité gis nga politique day jeex ci Sénégal Macky day dem beneen président day ñëw ñun sénégalais yi ñoo cay des suñu amul suñu jikko su rafetul suñu valeur su rafetul wallahi hmm. wallahi on va tout droit vers le mur waaw léegi léegi léegi dafa wax am solo léegi ma génn man dama doon diagnostiqué yow di constaté le constat il est simple bala u bañ ko nangu loolu c'est pas important pour moi mais affaire bu simple dafa wax valeur hmm. dafa dugg fu grave kan moo taxaw nekk président Sénégal. on parle pas du président Macky Sall. on parle pas on parle pas du président Macky Sall. non non non il est ah non non non. on parle de valeur non non Pape Sall yaa ngi fara. on parle de valeur. ah oui fàtte naa ni deux ans deux ans TV nga bokk. on parle de <laughs> valeur valeur valeur. <laughs> lan moo gën a ñaaw jox euh, Mountakha. waaw lan moo gën a ñaaw valeur. allahu akbar c'est important ce qu'il dit. xanaa yaa taxaw fii nga ne ñàkk du ma tax a def lu. xalaatuma ko ci àdduna. waaw man waaw man xalaatuma ko. duma ci yar samay doom duma ci yar samay mbokk duma ci yar nangam. waaw waaw léegi man ci logique boobu dégg ma la wax. waaw boobu. je ne parle pas du président Macky Sall nu mu yaree njabootam moom la mais man ci valeur yi ma yar jomb naa ko. très bien pas man jomb naa ko soo ko jombalul sa bopp man jombal naa ko sama bopp. waaw d'accord léegi ma ne. Mhm. ah ma ne. mais ñoo wax ak société bi moo gën. valeur ka mel nii. Mhm. ba gëmee valeur jàpp naa ni du ànd ak ko amul valeur. jàpp naa ne du ànd ci lu amul valeur wax mu deñ ci kàddu ñàkk valeur la du ci ànd juróomi at laay def wër fépp wax ko ñëw ne non non def ko. mun nga waat ba nga dundee ba léegi waxoo mu de. bi non attends c'est parce que tu. waaw débat de personne la cest à parle d'une personne. non je parle de la société sénégalaise dans sa globalité. est victime aujourd'hui ah, non attends tu personne. non non non je suis pas d'accord avec lui. non il a fait dix ans. il va faire 12 ans il va partir j'ai dit il est là pour un mandat ou bien deux mandats il va partir non non non ñu xam lu muy wax li c'est parce que il est partisan il fustige une personne moi je parle de la société li dul d'accord mhm. mooy mu jël débat bi teg ko ci benn nit or or nous avons eu quatre présidents dans ce pays là moom mooy quatrième bi il va partir on aura un autre président il va tenir le même discours sur ce président là c'est pas comme ça ça doit se passer nous sommes dans une société boo xamante ni nit ñi la ñu war a waxal ñu soppi doxalin xoppi comportement xam lan la ñuy dox ci taxawalin valeur la du nit. mais bu fekkee ne Adama dañuy gis ay détournement au plus haut sommet. là là il faut condamner là il faut condamner. mais loolu fekkee def nañ ko après société bi. j'ai dit là il faut condamner dama ne. est-ce que tàmbalee foofu aussi na nit ki détourné ba suba man du ma détourné. ah non ah non non ah j'ai ah dama ah ne. voilà dama ne quand vous donnez pas l'exemple vous dites aux populations non non def li may def c'est ce qu'il est en de dire non mais non Papa Sane Papa Sane ah, non man ci ay de nee naa ah, man ci liñ ma yare laa man ci liñ ma yare non parce que tu parles d'une personne tu parles d'une personne ah non le débat de personne ne nous intéresse pas xam nga xam nga voici la musique du Sénégal ah, au lieu de parler de la société haute il fut il passe à Macky Sall Macky Sall Macky ah, Sall mais bien sûr mais bien sûr mais moom moo ko dirigé allez-y bàyyi s'il vous plaît mu terminer Sénégal du dem sawaay parce que Sénégal su waree développé Macky Sall koy développé mbooloo arrête waay depuis 1960 on a dit le développement du Sénégal ki ko plombé wax na ko sànq mhm. c'est la France ak ses affidés malheureusement ñooñu vous êtes chroniqueur mais vous êtes homme politique quoi malheureusement depuis plus de 400 ans 500 <laughs> années ñu tënk ñu ci lu bon waaw yow boo ñëwee quatrième président la du Sénégal. Mhm. gis ne cinquième république Charles de Gaulle mi dawee 1944 dem def la mu def jël France ne ne africain yi seen xaalis France bu ngeen bëggee dund jël leen africain yi ñu xeex bu ñu xeex ba pare ngeen jël seen alal or bi ngeen sàccoon Malek fa ca des jëlaat ko làq ko fa bu ngeen paree delloo ko jël defal leen monnaie. Mhm. loo xam ne du sax monnaie le CFA du sax monnaie. Mhm. parce que mu amul garantie. ñoom ñoo ko jël arrimage la. waaw loolu bu ko nit defee. nga ñëw jël sa dëkk tayrewaat ko kooku. dina tax nga ñàkk valeur yow. waaw mais dina tax yow nga ñàkk valeur. dina tax nga dem agressé ji. saa dina tax nga rey nit. tu vas jamais tuer quelqu'un. ma ne tu vas jamais le faire. bu fekkee ni que aujourd'hui Sénégal li fi xew. nga ne ci wàllu déperdition ak dépravation. Mhm. ñu ne la criminaliser viol. Mhm. nga gaaw def ko. Mhm. nga gaaw def ko. ñu ne la loo xam ni bible Torah ak Coran da ko mu la góor jigéen. Hmm. criminalisé ko nga ne non non non. ça a été criminalisé par la loi waaye non mais. ça a été criminalisé par la loi jëlal sa débat. d'accord ça a été criminalisé par la loi euh, il faut qu'on arrête. Euh, euh, sur le cas de de la de la violence. Mountakha nga rebondir ci après ñu tëj quoi. d' accord merci Dieylani sama gars yi daal il faut ñu jubboo seen biir ko ah grand bi day déconné ah. <laughs> day mais nag il faut savoir que. Adama bu ko dagga ah. non non la racine du mal est ailleurs. Mhm. et que la plaie est assez profonde qu'elle ne se pense pas à la surface. c' est lan moo waral lii yëpp insécurité xam nga espoir dafa am solo. ci mhm. jeunesse ci nation. Mhm. dañ ne na dis-moi Abdoulaye Wade waxoon na ko dis-moi quelle jeunesse tu je te dirai quel peuple tu mais sa jeunesse boo ko téyewul ñoŋ ko mais ëllëg mais peuple bi ngay am da nga koy définir maintenant mais actuellement espoir boobu may wax bu dañee ci jeunes yi rek bonjour les dégâts sécu insécurité day dugg mais lan moo waral jeune boo xam ne jaral na ko mu tayle bakkanam ci gaal gi dugg gaal gi naan ma ngay wuti <laughs> ay Eldorado ay Barça ak Barsaq yow Barsaq nga yemaleeg euh, tekki soit dinaa tekki wala ma dem barsàq mais loolu ku xëy jël paaka jam ko nit rey de sang froid mais warul la bett moo tax qui est le garant de notre sécurité ici au Sénégal mm-hmm.